asalaamaaleykum euh, jërë ngeen jëf ci ànd bi ak programme Walf TV Walf FM ni ñu koy amalee alxamis bu jot seen émission keppaar gi fas yéene ak waxtaan korité bi euh, saa su ne bu feet dee jub si askan wi ñëppay ànd tiitandoo yokkute ci wàllu li ñuy jëfandikoo euh, ci yàpp wi cher ginaar yi nit ñaa ngi jàmbat ndax dinañ ko gisam duñu ko gis coowal soble bi lépp daal moom la ñu fas yéene waxtaane tey ak Serigne Mbacke Sylla di économiste si xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom nuyu nañ la sëñ bi Sylla jërëjëf Ndeye Comba maa ngi lay fay maa ngi lay ndokkeel ci invité bi ma defal pour ñu fas waxtaan ci li nga xamante ni dafa jëm ci korite gi ak prix yi di yokk ñuy dégg ndànk fii ak fële yëpp daal mhm. si gërëm bu baax a baax di nuyu aussi sa mbokk suñu mbokk téléspectateurs yi seetaan mhm. ci jërëjëf ni ñu koy defee saa ne bala ñu dañuy ut benn élément rek euh, tey askan wi sax euh, sottiwul waaye nag euh, dañu am benn élément boo xam ni mu ngi jóge ci pootu ci wàllu soble bi ndax korite gi lépp ko ëmb li jëm ci ndawal geek soble yi ñuy jëfandikoo pombiteer ñu dël élément achilien mi ñu defal reportage ci wàllu potu ñu ni am nañu soble bu doy boo xam ni mën nañu ko jox ci askan wi ci korite gi te du soxla ñuy ubbi bunt yi balaa ñuy sori ñu dem ci régie Cheikh Tidiane Ndiaye ak Cheikh Tidiane Diop ma féete foofu ngeen jox ñu élément achilien Sagna ba pare ñu doog a dugg nag ci laaj ak tontu. lu mat weer ngi nii ci la Macky sàll ñëwoon ci Potou ci diwaan Louga pour def leen wax feetu oñoo muy dañ doon fetal baykat yi ko doon bay ngir ren danoo góob lu mës a góob di production record de vingt quatre mille tonnes jamono yi nag baykat yooyu ñoom ñooy wax nguur gi ne bàyyi xel que ne sable bi ba léegi mi ngi ne gàdd mi ngi ne xuus ci pootu te nag lii di tontu ñi nga xam ne dañ naan soble dafa ñàkk pour que ñu mën a dugal ci réew mi soble bu ñu jëgaani su fekkoon du Guinée ak ak gambi ak ak Mali ak ak Côte d'Ivoire kon soble bi tey dañu kaa tuuri kon boo yaakaar naa ne koo xam ne dafa defar marché jaamur nag sa marché waxi noppi. am na yaakaar ni soble mu xam lu manqué Sénégal waaye soble mu manqué bokk ci moom li wetti woon nag mooy ah, seeraay bi ñoo wax itam nun soble ba tey fi noonu koy jaay ci deux cent franc deux cent franc ko paas Dakar boo dee marché Dalifort foo dem mënu fa paas deux cent cinquante soble manqué wul fenn na ci biir Sénégal tey gis nga lii fi ñëw tey ci soble tey la fi ñëw bu subaa mu ëppaat bu gannaaw subaa mu ëppaat soble dañuy wax ne ba weeru korité da jeex soble du jeex seen xel na dal boo te kenn du ko jënd ci réew bu seer nañu alerte gis nga ñii di wax dafa am rek heure bu jotee rek gars yi commencé leen yëngal yëngal leen rek bee nga xam te daa daañu wax dara ndax dañ yaakaar daañu yàq dara rek ndax commerçant yi dal di commencé préparer qualité bi mais loolu du am soble bi dafa bari tabaarakal sant nañu yàlla kenn du xalaat ba indi ko daa ci gis loo mësul gis soble bi xaajagul te yënguwul loolu moo tax béykatu Pout yi di ñaan agence de régulation des marchés di ARM ñu ne ñoom daal nan dem ci marché bi xoolal seen bopp fii bëgg-bëgg consommateur yi toll ak soble bi nga xam ne moom moo nekk sur place te ak lu mënti doon bu nu ubbi mukk marché bi soble bi ñuy jëgaani parce que loolu bu nu ko defee musiba la parce que soble bi nu bàyyi ci réew mi mu ngi ne fi xuus. ndax bi ñu tënkee prix bi ci Pout ba tey benn soble paaseegul deux cent dix francs deux cent cinq francs benn yoon. ba bisu tey jii directeur ARM na jël motukaayam dem ci pàkk yi na ARM taxawal dépasse de euh, mi di dépassel consommateur yi na dem ci li nga xam ni mooy marché yi mu wax li xew nii pootu mel nii la gànjool mel nii la lompul mel bee mboor soble bi yëpp tout partout nii la mel dafa fees del la kon nekk ki nga xam ne day wut sukkar koor nañu may jàmm neen xam ne mënul ne loolu am soble du jeex fii tabaski soble du jeex di leen yégal ne Aliou na sa xel dal dama bëgg nga jàppale baykat comme ni nga leen jàppale woon da nga leen jàppale nga ne benn ariwaas bu fi dugg koo nekk bu ñu leen bulut lu ñu am benn iddi fi ariwaas loolu mënul ne sol bi du fi jeex bu soble bu ngeen fekkee ba indi beneen na ngeen xam ne seen góor yàqu Louga Achille Niang Euh, Serigne Mbacké laa ñoo gisandoo élément boobu naam sax soble benn ponk dong la ci li nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo euh, ci wàllu korite gi euh, bu ñu nee feet prix di yéeg di wàcc loolu lan la mën a jure ci wàllu koom-koom bala ñoo tànn benn benn bu nekk ñu waxtaane ko. xam nga léegi boo boo sukkandikoo ci élément bi. Mhm. suñ ñoom ñu ne la par exemple que soble bi moom mënul manqué. Mhm. loolu su fekkee soble bi nga xamante ñoom moom la ñu am. doy na marché bu Sénégal prix warul mën a augmenté woo parce que soo déggee ne prix comprendre marché ni muy demee mhm. marché ni demee mooy ñaari nit ñoo fay daje mhm. ki nga xamante ne ni dafa am mbébétam ñëw ne day jënd ki nga xamante ni moom it dafa am lu muy jaay moom day jaay mhm. kenn ku nekk aussi da ngay xëcc jëmale sa kanam jëmale daal sa boor pour nga xamante ni say soit yow miy jënd nga ñëw am marchandise bi gën a baax wala produit bi gën a baax te it li ngay dépensé doon lu gën a tuut ki nga xamante tam day jaay moom day fexe ba nga xamante ni li muy jaay daf koy jaayee ci prix bu élevé donc loolu nag moo waral souvent ñu ne su fekkente ne maanaam demande bi dafa ëpp offre bi ñi nga xam ñoo ñëw pour jëndi ñoom ñoo ëpp li nga xamante ne nii seen bëgg-bëgg moo ëpp li nga xam ne ñiy jaay moom lañ yore il faut que pris bi mu augmenté wu. domaine concurrentiel la léegi nag am na aussi côté boo xamante ni mën na ñëw. état bi ñëw am fixe fixé ay prix administré ay prix wala mu homologué ay prix nga xam ne kenn du ko dépassé su boobaa aussi même su fekkente ne demande dafa ëpp aussi prix bi mënul évoluer parce que dañ koy dañ koy carrément mais non li mu mën a jural ci économie mooy am na ñoo xamante ni tey peut-être amuñu ay moyens ñoom tey seen consommation dootuñ ko mën a satisfaire et puis bu fekkente ne prix bi augmenté wu na aussi dina am ñoo xamante ni tey liñ bëggoon dootuñ ko am dañuy mujj di dellu ci li nga xamante ni gënu leen ainsi de suite loolu moo tax tey ji soble bi boo xoolee Sénégalais yëpp mën nañoo am soble ci njëgu jaadu quoi d'après ñii li ñu wax mhm. ci nga xamante ni moom lañ produit xëy na aussi mbir bi dafa am effet d'annonce bi mooy lan am na ñoo xamante ni xëy na ñu ngi jekki-jekki ne soble dina manqué xëy na pour ñoom tamit ñu mën a jéggaani li nga xamante ni am na ci réew mi dem jëli feneen ci biti andi ko mm-hmm. léegi nag loolu moom moo waral xëy na ñuy xëpp nit ñi wala ñu wax loolu rek mais d'après élément bi ñu jëm daal xam nañ ne moom moom moom soble am na ci réew mi te ci war mën a wax mm-hmm. comme soble am na ci réew ay doom réew mi ñoom ñoo koy kii je pense que état bi aussi war na def ba nga xamante ni dafay protéger mm-hmm. n'est-ce pas marché soble bi nga xamante ni ñi nga xam ne ay Sénégal lañ ay doomi Sénégal lañ fii lañ juddoo fii lañ dëkk fii la ñuy bay li ñuy am ci réew mi lay jëm ñoo ñu jox leen euh, priorité boobu ba pare ci wàllu koom-koom bu prix bi yéegee euh, naam commerçant yi ñiy jaay ñoom dañu ci gis seen bopp bu yéegee ñeneen ñi baa pëpp ñu mënut jënd du ñu jënd ndax loolu du am benn euh, jaxasoo bu muy indi wala disloqué yéeg ak wàcc boobu. non xam nga loolu moom kenn kenn ku nekk comme li ma ko waxee rek dès le nee naa la kenn ku nekk dafay jéem xëcc affaire bi ci karab kii jaay moom day jàpp ne moom tànk moom mu ngi non non ci économie nationale wax bu ñu waree jaay ñu ne lii lii lay jar bu ñu ko jëndee lii la ci état bi moom kii bénéfice bi lii la ci moom bu ñi mënta jënd dañuy arrêté ndax manquement yooyu amul leneen lu muy joué ci euh, manière générale ci économie loolu laa expliqué cest à que boo jëlee de par exemple dafa am ñu bëgg a jënd am ñu bëgg jaay il faut que ñi nga xam ne dañuy jaay il faut que ñu jaay mmh. ala kulli alin dinañ ñu bëgg jaay moom la jaay wala duñ jaay boobu débat bi foofu la problème bi nekk ñu bëgg puisque ñi nga xam ne bu demee ba sentir que ne ñoom kat li jaay mhm. ñii amuñu ay moyens ñu ko jëndee dootuñu mën a jaay dañuy obligé ajusté waat ci maanaam prix bi nga xam ne moom la ñu leen mhm. loolu moo tax ñu ne souvent prix bi moom mooy réguler offre bi ak demande bi waaw prix loolu ci ci ci domaine concurrentiel noonu lay demee mais nag su nekkee nag domaine monopole boo xam ne nga xamante ni ñëpp dañoo bëgg soxla loolu moom il faut que donc nit ñi jéem a peut-être bàyyi seen yeneen dem jënd li nga xam ne mënul ñàkk ñu jënd ko mais suñ ko mënee bàyyi moom moom dañuy bàyyi oh. noonu rek kon su ma la déggee lii di lu ñu mën a régler bu événement amee ay fête di am faaw li nga xam ne li nit ñi moom la ñuy gën a soxla ay sobleek euh, yooyu yokk mënul ñàkk foog mu parce que boo xoolee kiy jaay xam nga kiy jaay moom intérêt lay xool mais bu ñu tegee benn prix euh, néewoo bari kenn ku ci ne nga jaay loolu ñëpp mën a jënd pourquoi bu ñëwee ñuy yokk di yéegal di nekk di tiis sa xel lu a mën a jël ay matukaayam daan ne tey booy jënd soble nga koy jëndee wala booy jënd yàpp lii nga koy jëndee mais dafa am si kon euh, bu yokkoo état euh, yoo xamante ni mënoo ñëw rek réguler ko noonu du nit ki moom li muy bay ñaata la ko mën a dikkee ñaata la ko mën a acheminer ba mu ba ci marché bi coût de ne ko li ngay jaay yi aussi demagul noonu day bu dee bu dee aussi yàpp ki nga xamante ni dafa yar juróom xont ko ba mu toll fi mu toll munoo ñëw ne ko li ngay jaayee si kilo yàpp day daan indi problème mais bi li ma jaaxal yokk bi saa su ne mën na ñu jaayee kilo soble yàggul ay 350 ci marché bi euh, jàpp gën ngaa néew 400 gën ngaa bëri 400 mais ñu toog 2 jours affaire bi mën na yokk ndax souvent noonu lay demee ay tabaski ay korite ñu toog ba deux jours des ci wala benn fan des ci ñu xëy dóor ko 600 loolu kon état moo liggéeyul wala commerçant yi ñoo fu xale ñu baal ma ci terme bi pour bëgg gaawantu dajale seen xaalis wala ñiy jënd ñoo ñàkk fayda il faut am ku ko mën a yenu maanaam commerçant bi maanaam foqalawul day dafa gis benn opportunité bu placé wu ci lay profité jaay parce que ah, opportunité boobu mën na may na leen tant que état bi jëlul maanaam ay mesures ne leen lii ngeen mën a jaayee ñoom dañuy dem di jaay lu lu ñu prix bu gën a ngande bu ñu mën a am moom la ñuy fixé bu ñu ko mënee jaayee kilo soble junni ak kilo yàpp junni a jaayee junni aussi su état bi taxul dañ ko jaayee puisque dina am ñoo xam ne dañ dem jëndi mm. loolu moom loolu moom boose nga def ko leen rek lañ mën a def mooy état bi ñëw taxaw ne kat kilo soble moom dootul maanaam nii la mën a jar mais loolu aussi il faut que état bi dem gëstu xam ne maanaam nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci fii soble si léegi ñaata la leen soble si di coûter boo xoolee nit ki dina ñëw am lu mu dépensé avant muy am produit fini bi léegi loolu noonu ba ensuite dina ko indi ci marché dañu ko transport ainsi de suite léegi boo ko saytoo ba pare léegi bu dee ci kaawu soble bi euh, saytu woon nañu ko ba teg ko ci prix ba mu dégg nga bascule foofu euh, ci mhm. baykat yi deux cent dix lañ ko fay jaayee ñoom kii jëlee foofu bu ñëwee ba indi mën a jaayee ci détaillant bi ñu jaay trois cent cinquante jàpp mm. quatre cent mm. euh, kon bu ñu toogee ba deux jours mu tëb ba six cent wala sept cent xëy na ñoom dañoo yaakaar lu ñu ko jaayee nit ñi dinañ ko jënd moo tax ñu tëb dem foofu mais yaakaar naa yokkute bi warul ndax bayoon na ko ba pare mm-hmm. stock yi fa mu nekkoon la nekk fa nga ko doon jëlee nga mm-hmm. jëlee ji mm-hmm. lu tax bu desee ñaari fan ñu tëb te lépp lay doon du soble kese ah même ndawal bi tam noonu lay dem kenn ku nekk dangay ngay maximiser say profit ñoom noonu la ñuy defee quoi kenn ñoom dañu ñëw ne xëy na bay nañ soble Sénégal nit ñi duñ ko consommer noonu mais période bi nga xamante ni moom la consommation augmenté wu mooy période feet yi ci la ñuy profité ñoom tamit jéem a maximiser seen profit état rek moo mun a ñëw réguler loolu mm. état état mooy ñëw teg ut ay agent teg ñu dem vérifier contrôler ci marché bi ku ñu gis nga wàcc yoon ñu ensuite donc ñu daan la daan xam ne daan yu sévère la exemplaire su ko defee ñoom ñëpp a ajusté wu mm-hmm. mais tant que état bi ñëwul par exemple dem di def contrôle boobu sur le terrain ñoom tamit dañuy xool le maximum de profit ñu am ko loolu aussi nekk loo xam ne maanaam ñun dañ koy bañ ci économie parce que concurrence moom lañ gëm moom ñun conception boobu lañu am ci économie am na nag yenn prix yoo xam moom dañ koy administrer mm-hmm. deux cent deux mille quatre cent ba fi mu ne nii 3000 euh, yi sax mat na ci kilo yàpp bu dee nag bi mais évolution boobu ñu bàyyi noonu muy dem rek est-ce que duñu dem tamit ba mu ëpp loxo. loolu sax yow même boo toogee boo boo boo demee tuuti ci ginnaaw nga gëstu at yi passé kilo yàpp gënoon na mën a naa kii tuuti ainsi de suite dafay augmenté wu maanaam boo xoolee. Euh, que ne tey su ñu la prix bi augmenté na par exemple de 500 wala de de 400. Mhm. soo xoolee sax yàpp bi. donc loolu tax ma ne la tant que ñi nga xam ne ñooy jaay ñoom li ñu yoree dafa néew par rapport ak li nit ñi bëgg rek mhm. il faut que prix bi augmenté wu mais bu fekkee ñoom li ñu am dafa bëri trop ba nga xamante ni day dépasse sax li nit ñi soxla su boobaa prix bi day wàññeeku mhm. noonu la noonu la marché di doxee sauf boo xamante marché boo xamante moom di ko saytul boppam di ko di tëral prix bi di waxtaan ak jaaykat yi par exemple wala producteurs yi pour mën a fixer benn prix boo xamante ni dina nekk prix bu euh, ma la dégloo yëf naa gën a tar. ndax yàpp bariwul ginaar sax nit ñaa ngi coow ne li ñu yar bariwul wala bu baree yaakaar ne ëpp kon bu ma la déggee yëf fi mën naa gën a tar fi ya korité absolument bu fekkente ne par exemple dañu dem ba à trois jours de la fête ainsi de suite ginaar yi nga xamante ni nit ñi xam ne ginaar yi dafa manqué par exemple wala yàpp dafa manqué ñoom ñi nga xam ne dañ ko am dañuy augmenter seen prix pour gagner le maximum possible liggéeykat bu boo xam ne dafay ñëw di jaay moom toujours maximum de profit lay ut maximum yow mi nga xam ne da ngay jënd yow yaa xool li nga xam loolu la sa poos àttan nga dem nga jéem a xool li nga mën a jënd nga am ko le léegi nag foofu c'est entre le fort et le faible état bi rek moo mën a ñëw dox seen diggante def arbitrage xool nan lay defee ba nga xamante ni prix yi du jéggi yenn jéggi day euh, bu dee ci euh, wax nga sànq ba léegi ci état bi euh, mais bu dee ci association consommateurs yi bu boobaa ñoom lan la ñu war a taxawee ndax état bi ñu ngi wax état état mais dafa mel ni tamit foofu dañuy bàyyi muy jàll mais ñoom ñi nga xam ne ñoo war a gën a jege askan bi kon dans ce cas ñoom loolu la ñuy def ñoom buñ askan bi ay sirène la ñuy doon rek maanaam dañuy wax rek mais ñoom amuñu pouvoir de boo xam ne mën nañ ñëw ne kii lii ngay jaay kooku état moo am pouvoir boobu maanaam association des consommateurs structure privée la ñoom dañuy defan intérêt consommateur mais bul fàtte aussi que ñi nga xam ne dañuy jaay itam dañu am seen i seen i seen i structure dañuy defan seen intérêt personnel aussi defan seen intérêt personnel ba bu feet bu desee ñaari fan bu la yo neexee yokk ba fu mu la neexee xam nga tey yow yow yow soxna day ndax néew na rek <laughs> tey yow boo demoon ci marché di jaay yow yow yow da ngay wax ne man damay jaay lii am par exemple tey su ma ko jaayee prix bi du dinaa fexe ba nga xamante ne prix bi muy jare laa koy jaay mais bu ma dee ba xam ne tey jii kat fan yi moom su ma yokkee sax man maay buum man maay buum bi dama ciy profité mais bu fekkee état dafa ñëw ci man ne ma kat yow mii li ngay jaay prix bii laa ci tëral fi nga mën a yem su boobaa kat boo ko wàccee ay daan day tegu sa kaw mais tant que loolu amul jaaykat bi moom heure. manipulé da koy def. ba lu mu ko mënee rek moom taxaw na pour. def ko te te te loolu la ñuy côté court qui fait soo xoolee ki nga xamante ni moom moom moo ñoom ñoo gën a ñi gën a néew ci marché bi maanaam rek ñoom ñooy am toujours ki kii bi quoi en fait force bi. Mm-hmm. ce que du lu tax kon ñu ni euh, bu événement jub seen yi comme coow bi kaawu soble bi nga xam moo ci gën a bëri coow à chaque année. Mm-hmm. Euh, dañuy denc ci soble bi même bu amee ci dëkk bi li ñu fi bayoon doy na. Mm-hmm. commerçant yi dañu koy denc pour bëgg a imposer nit ñi wane ni amul bu ko defee kenn ku ne jóg di daw di toj sa bopp pour ñu mën leen a nax. waaw maanaam ñoom ñooy créer situation de pénurie bi par exemple jël yenn stock yi retirer ko carrément du marché. Mhm. xool ñoom après nan la xam nañ ne après même bu fête bi dina dinañ ko mën a. léegi nag ñu jéem a maximiser seen profit fii léegi daan ah soble de amul bu soble amul léegi Sénégalais yëpp ñoom ñëpp dañuy teel a jóg. ñu jëm uti te kenn ku nekk lu metti metti bu doon jar 300 euh, léegi jar na 600 da nga naan naa gaaw jënd ndax mën naa dem ba 800. E, effectivement kenn ku nekk lu mu metti metti nga jéem a dem ba am ci dara ci soble boobu ñuy jaay léegi nag yow yow mi jaay na nga ne ah comme soble bi manqué na man damay augmenter sama prix jeex euh, ci état euh, ci wàll boobu ndax wax nga rôle état moom moo war a taxaw di régulariser prix yi. Mm-hmm. ba kenn ku ci nekk doo mën a weesu naam sax ñoom fi ñu koy jëlee mënoo leen a topp yëpp ndax événement am na des na ñaari fan bu ñu jógee six cent euh, trois cent cinquante 500 dem ba 600 nga ni marché bi moo ubbeekoo noonu kenn ku ci ne li ngay jaay moom nga war a jaay mais ñu koy jënd dans sa cas ñoom lan la ñu war a taxawee. mais nag aussi même état bi aussi bu régulariser doo xëy xëy rek ñëw nit ñi da leen di poñe rek ne lii nañuy jaayee. parce que aussi da ngay comprendre ne bu fekkee euh, carte d'espèce bi nga jël nii la nit ñi mën nañu dem. bàyyi seen soble teg ko dañ koy stocké fi ñu koy stocké dañ fay fay ay coût la ñuy supporté durée boobu ñuy toog pour ko dina am loo xam ne dafa yàqu ainsi de suite ñoom léegi fii lañ mën a def ci profité ci période bi jéem a récupérer au moins donc seen xaalis jéem am aussi profit léegi ñi nga xam ne dañuy jënd nag ñoom léegi ñoom soit dañuy mën a accepter li fi nekk dem jëndi quantité ba dootuñ ko am mais dinañ ci am as tuut mais do parce que seen pouvoir d'achat permettre que loolu mooy tax foofu état bi il faut mu taxaw bu baax a baax a baax a baax mhm. ci côté consommateur yi mais nag pas aussi muy wàñ loxo ñi nga xamante nii ñoom ñoo yore soble bi ko jaay ñoo ko produire ko si il faut mu xam ñoom ñaata leen soble bi coûté ba pare euh, mais bu dee ci kaawu soble balaa mm. ñu koy tëj bunt yi di mm. euh, arrêté importation bi mm. fekk nañu waxtaan ba xam ñoom coût bi lan la war a jar ah ndax weer ci gannaaw waxtaan nañu ko ba prix bi mu nekk presque bougé wul

état bi moo remplir euh, rôle am mais état bi bu fekkente ne par exemple corps de contrôle yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a animer tamit doyuñ effectif yi doyuñ da ngay gis tey ñu dem fenn mën nga toogaat doo gis kenn mu dem fenn su ko defee contrôle boobu dafa am ñoom ñaar nu gisee ñu régler problème foofu aussi yooyu yëpp euh, dafay tax commerçant bi nga xamante ni buy augmenter ay prime du ragal dara parce que day wax fii bon am na loo xamante ni peut-être buñ ma jàppee man a régler ci beneen côté ñuy ñuy def genre récidive yooyu chaque fois que bu ñu jamee jëm ci ay fête da ngay gis prix yi dafay augmenté wu denrée yëpp la nag mhm. denrée yëpp dafay augmenté ñu fàttali rek ni ubbi nañu ligne bi mën ngeen a wootee ci 88 628 99 99 ñu teg ci 114 di waxtaane mbirum wàccaayu korite gi ak njëg yi nga xam ni askan waa ngi tiit ni dina ci euh, tàmbalee yokku lu ci mel ni coowal soble bi judd na dinañu jëlee soble bitim réew ak bi nekk ci dëkk bi doy na euh, kenn ku ci ne sa xel a ngi tiit rawatina ñu war a togg lu jëm ci wàllu ndawal beek Eh, coow li tàmbalee ndax yàpp bi mu tàmbalee yokk yàgg na ginaar nit ñaa ngi naan li fi nekk eh, du du mat askan wi ren korite gi coow li daal bari na ci ponk yëpp mhm. li ñu war a jëf bi eh, ñu fàttali rekk ligne bi waaye ñu wéy ba tey ci suñu waxtaan ndax mhm. lu mel ni duñ ñu guleet mhm. chaque événement noonu lay mel ndax amul benn structure boo xam ne mën nañu ko teg ba buy ñëwati ñu teel ko programmer ni lii daal nañu koy saytu xam lii doy ci marché bi ndax mën ma nee ministère ñi yore waa ARM war nañu jàngat chaque année li ñuy soxla même bu dee population bi day évoluer war nañu xam li ñuy soxla ci soble ba buñ leen leen euh, commerçant yi woo leen ni leen am na rupture ñoom war nañu xam baykat yi li ñu bay. xam nga dafa am. domaine yoo xamante ni mhm. def ci contrôle euh, yomb na. balaa ñuy kii boobu ponk boobu nga baal moom ñu jël ki ci ligne bi comme ubbi nañu téléphone bi. pare ñu doog a tontu laaj boobu allo. waaw asalaamualeykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Ajaratu Ndeye Kumba Diop. waaw. Mor Niang bu Mbacke Bari la. Mor Niang ñu ngi lay fay. maa ngi lay nuyu nuyu sa gan gi nga daal foofu tey mhm. nuyu waa si la mu ngi lay fay. ñaan jàmm ne. allo. ngi lay déglu Mor Niang. di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ji ba pare tasaare ko ci biir réew mi. amiin amiin affaire commerçant yi nag. Mhm. xam naa daal ñoom euh, li ñuy wax mbay ci sa. parce que soble si jógee ci réew mi nga xam ne mu ngay jóge ba ay lompal ak yeneen dëkk yu yu ko wër yëpp. Mhm. war nañ leen a jàppale daal pour fexe ba Sénégal yi consommer consommer local. Mhm. mais aussi tamit ñi nga xam ne ñooy consommer kii mi tamit ñi fexe ba dafa leen prix bu abordable. parce que prix yi da toog ba comme ni nga ko waxee tout à l'heure dernier minute yi. Mhm. vraiment nga kilo kilo kilo kii kese. Mhm. fi mu toll maa ngi dégg ki doon rawaan di ko ce matin. Mhm. mu ne kilo bu deux cent deux cent dix franc du ko passé deux cent quinze franc. mais bu ñu demee ba fay tabaski korité bi. da nga gis ñu yokk ko ba yokk ko presque ay six cent cinquante sept cent ba huit cent loolu tamit aussi jaaxal nañu. day na waay mu affaire commerce bi. ministre bi yore commerce bi. war na fexe ba réglementé affaire yi. dëgg la donte quand bi daf tëb mais ñu ñu ko réglementé. Mm. parce que Sénégal da ngaa gis yóotu suba di yokk cent franc. Mm. réew yi ko ci. Mm. Sénégal rek laa gis nga xëy bu la neexee ci gaz bi bu la neexee yokk ci mburu bi bu la neexee ñu yokk ci soble bi. te du mujj fenn. loolu tamit aussi jaaxal na askan wi. Mm-hmm. parce que prix dafay taxaw benn place. gis nga yàpp bi fan yii paas. Mm-hmm. mooy de collectif bu jub ñu yokk ci 500 francs. Mm-hmm. doy na waaw loolu fan nga ban réew nga ko mos a gis 500 francs ci augmentation. Mm-hmm. lekkay mooy ñu sant Fall ak Jalle ñu toog rek. <laughs> yéeme na ñu topp ci lekk loo xam ne amul benn njëriñ. doy na waar. waaye nit ñi di mën a askan wi rawatina banlieue ma jëpp. yéeme na. jërëjëf euh, Mor Niang ñu koy euh, gërëm ci wooteem daanaka ponk bi ma la doon laaj pour nga tojal ma ko gouvernement bi jël euh, ay matuwaayam bala ñoo yegg ci bis yu mel ni foofu lay duggee ci wàllum prime ni muy yokkoo ndax at mu jotaan lii mooy am bu tabaski ñëwaatee ñool la askan bi di jotaat bu korite ñëwee noonu décembre bu ñëwee noonu la ñuy jaxasoowee ñu jël keneen ki nekk ci ligne bi ba noppi allo waaw dafa mel ni tontul ba noppi li ma doon wax ne dafa nekk domaine boo xamante ni aussi réguler ko du yomb trop. Mhm. surtout côté yàpp parce que côté yàpp bi mënoo ne ay coût fixe la li yàpp am parce que yàpp bi aussi mi ngi dépendre par exemple ci d' jur gi ñu yor jur gi ñu yor nawet bi ni mu demee ainsi foofu il faut nga a xayma coût yi nga xamante ne nii moom la da may baal ñu jël ki ci ligne bi ba pare doog ñëw ci fi nga doon développé ci wàllu ndawal geeg ni ñu koy jaayee allo salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam soxna Ndeye Koumba Diop. waaw fàttale tur bi. maa ngi nuyu di nuyu ziar di rafetlu liggéey bi. Mm, jërëjëf. ci de géwal wal fajit lan koy wax Touba Mbacke. waaw ñu ngi lay dégloo. waaw sama taalibe boobu Sylla Sylla boobu. waaw ndax xam nga ñooy kilifa suñu sant Sylla. ndey Serigne ah, Mbacke sama mbokk la sax parce que man Mbacke laa dëkk xam nga. waaw waaw ñu ngi ci nuyu Touba bi. Uh-huh. xam nga soxna mm-hmm. man tax wàllu soble rek ay pomme de ak yooyu sax. Mm-hmm. xëy na mën na ma comprendre parce fii leen koy bayee Sénégal. waaw kon su gouvernement bi war a jël ay matuwaayam pour nit ku du yokk wala du yokke nu ko neexee. Mhm. ba lu tax bu nee yokk nga yokk léegi. Mhm. te bu nee wàññi doo wàññi léegi. Mhm. loolu moom bu gouvernement bi deful la ko war kooku moom mooy responsable bi. mais man li ma ci dal dama bëgg ci wax mooy. mooy wàllu ginaar importé. ñu bàyyi wax ndax gis nga ak ak foie bi ñuy def ñuy peese la xaw ma. yaram gis nga loolu. Euh, nit ñi war nañu cee dimbali bu baax a baax a baax. yi ci lañ koy daal di pousser rek. ñëpp jël am dafa dafa am yoo xamante ni. Mhm. dañ koy kaaw ba yu mel ni événement yu mel ni ñëw. Mhm. nga xam kenn ku nekk day daw wuti ko. Mhm. ndax xam nga ki nga xam ci yow da nga am mu yàq koo maat sa xew mu tabaanoos. xam xam nga yow doo xam li nga doo xam bu billaay. su sa poos mën rek ngay jël lépp nag yow ki nga ci def sa tànk. nga jël yoo ne waroo ko am na ñoo xam xam ne xarit ak korite. waaw ci la leen seen feebar di toppee. xam nga si yow nday os nday nday kumba. tànk beeg parce que toll na ni tànku nit loolu ginnaaw la la nday kumba. yéeme na. ah loolu moom war nañu ci dimbali bu baax a baax a baax ñu di ko xool ndax yow euh, ginaar boo xam ne loos bi rek daanaka toll na ni un mètre cinquante wala un mètre xam nga yooyu loos moom lu man xaw ma ginaar yi lan lay doon. <laughs> yooyu moom man man man man waaw man daal ndey kumba yooyu moo ma tiital lool man wax dëgg yàlla da ngay dem ci marché bi léeg da ngay gis poids boo xam ni mm-hmm. parce que ñun ay géwël dañuy dem ci nag yi di defar ak mel noonu gis nañ poids nag ni mi toll ñun dëgg la gis mm-hmm. boo xam boo ko tegee ci ay bascule daanaka day fees ci ay ay ay ay poids daanaka day fees poids boobu poids mooy loolu day na waar ah ndey ndey kumba yooyu ma moom indi ci ay leeral ba xam loolu moom mm-hmm. ñun ñi xam suñu xam-xam màcc ñu ca tiital nañu ah ñu orienté ñu ba xam ne fu ñu war a jërëjëf. jërëjëf ba pare de wax ñu koy gërëm ci wooteem euh, ci wàllu kaaraange gi moom ak qualité bi la doon wax. Mm-hmm. Euh, daf ñoo fekkoon ci ponk boo xam ni mbirum euh, yàpp bi ak. ci ni ñu koy tegee prix la ñu nekkoon. tarification. waaw baal ma ñu jëlaat ki ci ligne bi ba noppi allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna maa ngi lay ziar. ñoo ngi nangu ziar. Euh, ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. te itam fas yéene dugal suñu xalaat itam. Mm-hmm. xalaat bi ci dugal itam du dara lu dul rek maanaam ñu bëgg. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñooy bay li nekk ci réew mi. Mm-hmm. ngandawaay bu fekkente nii dañuy jooy na guvernement bi na bloqué liy jóge bitim réew ndax ñu mën a jaay seen marchandise mm-hmm. bu gouvernement bi bloqué loolu ñu bañee ñoom itam natt doomu aadama yi di yéegal prix yi di neex waaw mm-hmm. ah, parce que loolu xam nga nit ñi néew nañu doole néew doole goo xam na nii bu fekkente dagaa ngaa aj neex na nàngam laay jaayee bu ñu demee ba ñàkk pexe fu ñu jaar jëndee loola waaw kay nit ki nag doone na ma état dimbale ma jaay sama marchandise état dimbale la téye lay jóge bitim réew ba noppi nag. Mhm. au lieu que nga jaay sa marchandise jaay mu normal waaye nag nga ñëw ne comme man rek ma fi li li ñuy wax naan comme comme muus mi nekk fi jënax ji nu ko neex def. Mhm. loolu rek du yëfi nit. doomu aadama buy def dafay def loo xamante ni ñëpp dañ ciy jariñu mhm. te nga bañ a profité ci eh, xam ne bloqué nañ la li daan jógee ci biti rek nga bëgg a ci doomu aadama yi loolu du loolu fokkale taxut kenn am lu bari nit ki day teg mbiram ci yoon mhm. yàlla mën koo dimbale mu am na mu soxla kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yow itam soxna si yal na la yàlla defal réussite ci li ngay liggéey ndax rafet lu nañ ko liggéey ànd naag yar ànd naag teggin te doo débordé yoon mm. yal na la yàlla taxawu ndax lu doomu aadama mën a am lu dul ab yar itam ëllëg ci si biir dañ ko koy xasee rek te du ci mën dara jërëjëf jërëjëf ñu ngi rafetlu woote bi euh, moom tamit ci wàllu prix yi fi nga nekkoon daanaka foofu la nekk yow nga doon expliqué euh, ñu jëm ci wàllu ndawal ak évolution bi xam nga muy ndawal muy soble bi soo ko jëlee aussi nekkul loo xamante ni booy fixé prix bi da ngay xëy rek fixé ko parce que mën na ki nga xamante ni par exemple ko bayee telle zone bu dee soble la. da ngay xëy rek fixé ko bi laay bañ a dégg ñu fixé ko. weer di yi réunion fixé ko ba mu nekkoon ci prix. xam nga tey lu tax ñaari fan ñett ñu yéegalaat ko. xam nga tey <laughs> Sénégal <laughs> bu ñu bëggee enterrer benn problème dañuy créer commission mu jeex. Mm. ñu wax ci après mu jeex quoi du am suivi. loolu kon da dul am suivi état bi day def ba mu tër ba mu normal ñu sànni ku nekk tëb aw gis nit ñëpp tëju toog waxtaan ba pare tënk juboo mhm. ñu pare deux jours trois jours am ñu génn ñun kat lañ jege woon mënatuñ ko te duñu delluwaat fañ ko waxee woon xam nga lan mooy waral loolu parce ci biir dafa am ñuy tricher xam nga loolu aussi du ñëpp am courage boobu nga toog ak autorité mu wax la nga ne ko man damay bay ba may bay laa ji temps bi laa fa def temps boobu dama koy valoriser ñaata aussi laa koy jëlee su ma ko dexeeñ fan laa koy yóbb su ma paree ensuite coût transport ba mu àgg ci marché ba fa ma koy stocké dama koy fay nga def calcul bu rationnel nga teg nga ne lii mooy sama coût de revient boo koy jaay comme temps bi la ma jëlee war naa ci am bénéfice temps mhm. léegi nag nguur gi ñoom ñëpp buñ juboo xam nga tey ki nga bayee Saalum ak ki ko bayee côté jàmbur ki nga bayee Bawol peut-être que bokkul aussi coût du bokk mhm. léegi boo jëlee loolu bu ñu toogee il faut que au niveau national ñoom ñëpp ñu toog waxtaan de mm. manière sérieuse kenn bu nekk aussi mm-hmm. nga wax li nga xam ne di nga ko mën a sàmmanteeg moom su ko defee ñu fixé prix bi nguur gi aussi jël ay matukaayam jël ay agent loolu yoo xamante ni terrain di vérifier daal képp koo xamante ne nii euh, wàccoo nga ak loolu ñu jàpp la teg la ay daan yu sévère su ko defee ñeneen ñi loolu jëleen leen du charé bu duñ ko def mm-hmm. mais nag gis nga même problème mooy ñëw ça fait combien d'années bu jëlee ci soit veyu tabaski veille Korité veille Noël nii lay demee ñoom parce dañuy wax ne ah ñun dañuy liggéey ah amul problème léegi comme bu ñu fixé suñ prix yi à un niveau donné aussi sénégalais yi dinañ ñëw jënd ko. Mm-hmm. ak lu ñu am jafe-jafe jafe-jafe dinañ def tuubu mm-hmm. di xoole même des fois moom moom waroo takk sa biir ñëw def ko après mm-hmm. peut-être dina métti trop mais di ko def parce pour sigil sa bopp aussi nit ku nekk sa dignité nga am aussi. moo tax ma ne la il faut ñu xoolaat affaire yi naka lañ koy nasee naka la ñuy fixer prix yi ba pare aussi. waaye man bu dee prix yi dina ma jaaxal ndax ñi nga xam ne ñooy bay soble. Mm. à chaque fois boo leen waxee ñu ni ñun li ñu koy jëndee ca tool ya changé wul. commerçant yi ñoom la ñu jiiñ ñi bu ñu ko fa ñëwee ñoo koy denc ni manqué na wala ñu ñëw laxas ci jaan ni lii la ku bëgg jël ku bëggul bàyyi mais ñoom seen boobu seen dañ koy setal dégg nga ci di wax nee na 220 moom lañ ko doon jaay li ñu wax ak état ba tey wàccuñu ko ñoom commerçant yi la ko jiiñ xam na commerçant yi ñoom ñoom la wala du ñoom yow fàtte jikkoy commerçant mm. jikkoy commerçant mooy lan ut bénéfice mais ñu teg ko ci yoon bénéfice fa. waaye bu ñu bëggee bu jafee kenn ku ne yóbbu fanweer mais pourquoi nga teg ne foofu la mën a am bénéfice moom tant mu ngi mën a am bénéfice bu élevé rek da koy def. tant que gisul koo xamante ne nii. day taxaw day taxaw ne ko lii doo ko fi defee. Mm-hmm. moom day jàpp ne day jaay muy dem. yaa ngi nii tey da gis yeneen produit yi koo ci gis mën nga dem ci benn dëkk ñu ko fay jaayee cent franc nga dem feneen mu fay jar deux cent cinquante mm-hmm. donc lan moo tax parce que dafa am loo loo xamante ni moo fu manqué mooy koo xam ne mooy ñëw ne leen dii la nekk système boo xam dañuy libéraliser lépp wala état bi day ñëw ba léegi yi am na am na parce que bu fekkee ay denrées de première nécessité la il faut que état bi ñëw diriger pays effectivement mm-hmm. mais non régulation nag moo yombul Sénégal mm-hmm. moo yombul Sénégal parce que matukaay yi ñu ci war moo fi moo fi manqué mm-hmm. parce que tey ji même ba agent bi lay dem sax di la xoolal sax agent bi des fois sax mën naa dem ba àgg fa mu ko war a contrôler ba gis lépp ba ñu wàcce wareefam waaye du wàcce wareefam loolu la ñuy wax ki moo mën a wax ne man kat dañ ma tànn seet ma ci ay sénégalais jox ma confiance bi su ma ko def kenn dañuy dem nekk fa des fois seen gafaka mhm. mais askan bi est-ce que ñu fayda ñoom tam li ñu leen teg ñu tegoo ko non du question ñàkk fayda parce que tey da ngay jënd da am soxla loo xam da koy lekk wala yaa xam foo koy def donc boo ko soxlaa dangay ngay dem jëndi ko léegi yow bu fekkee prix yooyu rek nga fekk mënoo ci li ma jaaxal dangay gis yenn réew yu ci mel ni Côte d'Ivoire ñu yokk fa mburu ñaata xëy na bu kenn jënd waaye fi boo ko defoon dafay mburu day mel ni dundul euh, mburu rek laa la jox exemple mburu rek ñu ne bu kenn jënd kenn jëndul boulanger dañu dem réuniraat toog xool seen bopp mais bu buñ ko defoon noonu ñu ni soble soble seer na ñëpp bëgg nañoo soos mais nañu ko teg ci yoon est-ce que kon buñ ko defee benn at bu réussir duñ ko bàyyi mais est unanimité boobu di nga ni tey ji ñoom boolu wax ñu naan ku mën a fay fay ku mënul nga toog dañuy dem pour nga dajale tey xoolal man Euh, par exemple association consommateurs si ngay gis nii des fois noonu lay demee événement yi da ngay xool da ngay xool d'abord association consommateurs si da xool mm-hmm. ñoom ñooy defoon askan bi yëpp. Mm-hmm. doo fa fekk deux cent cinquante personnes mm-hmm. lan moo tax parce que nit ñi ci boppam ñoom ñoo ñoo dem ba finalement xamuñ lu ñu bëgg quoi mm-hmm. léegi dañuy ñëw ñu teg leen loolu ñoom ñoom dañ naan garaawul nañ dem yàlla du jeex loolu discours sénégalais la léegi su ko defee ñoom bu ñu demee dinañ jéem a jënd dinañ jéem a wàccoog loolu de façon bu ñu demee après dañ ciy adapté wu finalement prix day gën di augmenté di dem di dem rek waaw bu dee ci yàpp xam nga aussi période bi ñu nekk nii aussi daf ci daf ciy joué parce que boo xoolee période nawet yàpp mënul bëri. il faut mm. tamit nga comprendre loolu. te te te bu fekkente ne par exemple jur gi. par exemple bariwuñ fi noonu aussi. Mm. léegi ñoom bu ñu demee ki nga xam ne day jaay yàpp dafay dem jënd. xar wala ab nag wala lenn su ko jëndee moom mm. dafa am coût bu mu koy coûter moom tamit buy jaay kilo bu prix boobu muy jëndee évoluer du ko mun def tey jii période bi ñu toll nii boo bëggee jënd xar day cher parce que ñi même ñu ngi ñu ngi jëm ci korité parce que parce parce que demande xar yi dina évoluer même du bu mel ni bu tabaski bi aussi dina xaw a évoluer évolution boobu aussi dafay dafay am effet ci prix bi ñu koy jëndee mm. léegi su ko defee man mi nga xam ne que dama doon jënd sama client bi di ko jaayee taw léegi tey xar mi ñu ma jaay tey wala nag bi ñu ma jaay tey mm. ma ñëw pour war ko def léegi dem di ko jaayaat noonu mm. comme ay yàpp noonu après man su ma demee dam damay gis ne ah fekkat 1000 francs yokk ko supporté de ko bi li des ci waxtu bu bariwul sax waaye ñu jël ko doog a maaleykum salaam ñoo ngi sant sëñ bi foo ñu woowee am am na solo na jërëjëf mais affaire bi li koy régulariser mooy ci marché ba parce que fu mu li gars yi wax ne fa la deux cent dix lay jóge foofu marché yi loolu nekk bi marché bi trois cent vingt cinq ngay jëndee wala trois cent cinquante mhm. prix jaayaat wala waaw yow mi jënd pare di ko jaay yow boo demee di ko jaay au jaay quatre cent. Hmm. dëgg la moom laa. léegi loolu loolu la ñu a xoolal nan lañ koy defaree rek. bu hmm. jógee fële deux cent vingt ba egsi fii trois cent vingt cinq différence. waaw. Hmm. loolu mooy problème bi nag. waaye yéen fas yéene leen a yokk daal ba ay sept cent ak huit cent. dem na moom mu ngi doon wax rek. ci wàllu prix bi moom laa expliqué li mu wax nii ça se comprend. parce que bu fekkente ne par exemple yow da dem jëndee ko fële. pour andiwaat ko fu mel ni Dakar wala nga jëlee ko pour war ko yóbbu Thiès wala Kaolack wala benn affaire di nga support transport. Mm. transport aussi prix bi prix bi fixé léegi loolu noonu nga supporté comme transport da nga koy yokkuwaat ci coût bi nga supporté léegi booy jaay nag yow léegi après da naan man coût de revient bi lii la mm. sama marge sama bénéfice temps léegi nag yow yaa xool am te li ma la wax léegi rek moo nekk bénéfice bi moom tant que amoo ku leen naan la déet dafa ëpp da ngay da ngay dem mën a jënd di leen ko jaay leen ko jaay ñu li ñu cëraloon ci waxtu jeex na tàkk waaw man maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi dina wax ne moom war nañ gën a mën a góorgóorlu daal en tout cas bu ñu bëggee vraiment euh, prix yi ñu koy fixé muy jaar yoon il faut que tamit agence yi nga xamante ne ñoom ñoo kii ñu gën a bay seen waar daal gën a góorgóorlu ci li ñu def aussi askan waaw euh, jërëjëf euh, ñuy fàttali Serigne Mbacké Sylla di économiste moom lañ fi dalaloon tey di waxtaan ci wàccaayu korité gi ak njëg yi askan wi tàmbalee tit Euh, dina manqué que du manqué lii lañ leen fi indiloon lu ñu fi juum rek ñu ngi koy jéggalu di jaajëfal ji jàpp ci émission ba mu sottee ku ci mel ni Oustaz Assane Diouf ak euh, Aliou Ndiaye nag moom tey dafa dem congé ñu koy ñaanal mu dallu ak jàmm dellu balaa yàgg Junior Thiam mbuutu ko fii jàpp ci liggéey bi Cheikh Tidiane Ndiaye ak euh, Cheikh Tidiane Diop féete ci wàllu régie ba Ndella Amar Gueye jërë ngeen jëf ci ànd beeg programme Walf FM Walf TV beneen talaata ñu indiwaat beneen thème waxtaane ko ci keppaar gi jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jii seen équipe bu jàkkaarloo askan wi solati nay dàllam ñëw ca dëkk bi ñu naan Anen. Anen cosaanam ci gàttal mën naa leen ci wax dara ndax ñun ay tukkulóor la ñu woon suñ ci boppam Fuuta la bàyyee ci dëkk bu ñuy wax Pété ci département bu Podor. 1860. wax dëgg yàlla ku xamoon démb. jaar-jaar yi nga xam ne ci la ñu jaar ci càcc ak jur ak fii ñu toll mun nañ ne quatre-vingt pour cent wàññiku na. fii courant mooy gën a def soxla mooy priorité bi nga xam ne moo gën a am ñaareel bi fekkumbal bu nawet bi ñëwee am na métti lool taxi yi dañuy ngiroo ci àll bi nit ñëpp di sonn te fii marché la. ñun képp koo xam ne yaa ngi ñu dimbale jur gi ci nga ñu dimbale jur lañu am. ci la ñuy dund ci la ñuy dee ci la ñuy bay bépp baykat boo xam ne mënoo am seret mënoo am fas c'est pas l'appel ngay bay xoola jigéen ñi jigéen ñi ak ndaw ñi case sante saxte na fi gis nga xale yu ndaw yii amuñ fajukaay ñi ngi jël kumbal 3 kilomètres la jigéen ñi wucc nañ fi doom tu yàqule nañ fi du jeex yoon bi baaxut bu ngeen fi jaaree gis ngeen ko newet nag rawatina nawet ba ndox am su boobaa moo fay jaar mën nga saa dugg sa doom mën na caa tàbbi leneen mën a caa xew. nañu waxante dëgg gis nga képp koo xamante ni yaa ngi fii ak dëkk bi moom ti doon sàcc ya nekk nit ña xam nañ ko nit ñi nag ñoom ñoo ragal problème mu sàcc parce que duñu dénoncé buñ doon dénoncé sàcc yi kon sàcc bi jeex na fi. tafsirul quran ak oustaz Adi Niass doomi abi Soufiane dem bëgg yonent bi ba dugg ci lislaam ànd jëkkëram ñi dem gàddaay yi fële ca lay doon di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet. inna haadha al-qur'aan yahdi lillatii hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'miniin. tëjteel alxuraan bu Oustaz Hady ci Walfadjri TV alxemes jii doon di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bu ñetti waxtu jote jàpp ñeenti waxtu. on direct ci Walfadjri TV ak Walfadjri FM bés bi nag ñu ngi ko jagleel peuple Palestine bi jànkoonte kiy jafe-jafe te àdduna bi mel na kuy seetaan bés bi nag mu ngi amee ci teewaayu ay ambassadeur